asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi seetaan RTT TV euh, ñu ngi leen di nuyu fu ci waay mën a nekk ci àdduna bi di leen jox seen wàccuwaay bu baax euh, di leen ziyaara di jiital ci nuyoo bi ak ziyaar bi dul Mouhamadoul Mountakha Bassir ñaanal ko sunu borom gën koo yàggal te may ko wér ñaanal sëñ Modou Mbenda Fall sunu borom gën koo yàggal te may ko wér naal yi ñu naal ngir liggéeyal ko borom Touba ñu def ci lu kawe seen jot Euh, ñu ngi fii ci diwaanu Thiès ñu nuyu euh, ki fi nekkal Cheikh Mamadou Mountakha di Serigne Saliou ture ñaanal ko sunu borom gën a guddal fanam waaye siyaar ko siyaar njabootam yëpp euh, ziar bu baax sëriñ Khadim Lo Gaydel moom it mi nekk fii ci Baxdaat di ko jox wàccuwaayam bu baax ziar Serigne Muniru Al Khalifa Njegen di ko jox wàcc waayam di ziar famille bi yëpp. di ziare mboolem koo xam ne rek yaa ngi topp télé bii nga xam ne mooy RTT TV si seen jotaay yu am solo yi mbokk yi tey ñu ngi ci jotaay bu am solo di wàccaayu bis yi saa su nekk ni leen koy defalee euh, fu mu ci mën a xew rek wax nañ leen ko ñu dem ànd ko ak yéen waaye ànd ko ak ñoom euh, laaj lan moo fa xew waaye waxtaan ak ñoom ci sabab bis bi. tey nag ñu ngi fii ci jaxaw ci daara ju mag di daara Serigne ko Cissé di ko ñaanal sunu borom yokk ay leeram te taasuñu ci barkeem. Mm-hmm. di nuyu doomam ju tedd ji nga xam ne moo fi nekk di Cheikh baara Cissé. Euh, di jëmm ju am taxawaay waaye di góor yàlla euh, yor fii ci daara ci jaxaw waaye am taxawaay bu ràññee ko ci diwaanu Thiès yàlla def bis bi nga xam ni mooy bisu daara ji euh, di bisub alxuraan xale yi nga xam ne ñoo nekk ci daara ji di wattu alxuraan at mu jot ñu dajale leen ci jàpp ci benn bis xale yi li ñu def ci ñoom ñu tari ko seen i mbokk dégg ko waaye seen i dëkkandoo dégg ko waaye koñ bi ñu nekk ak àdduna bi fu ne waaye di fa jógee di ñëw di wuy si bis boobu ren nag dëppoog 32e euh, édition ñu woote ko mu war dëppoog la 4 incha allah euh, ñu ñëw déplacé wu ñëw fekk fii Serigne Bara Cissé euh, ngir waxtaan ak moom ci bis boobu bu ko defee Cheikh bi dañ lay nuyu di la bàyyi nga nuyu ak téléspectateurs yi seetaan RTT TV. asalaamaaleykum Serigne Khadim. Mm-hmm. maa ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay. ñu ngi lay fay bu baax si. di waa télé bi yëpp. Mm-hmm. waa mm-hmm. waaye di nuyu bi. Mm-hmm. di ko ziar bu baax. di nuyu mboolem ñi nga xam ne ñooy auditeurs ak téléspectateurs yi nga xam ne ñooy suivre télé bi RTT. waaye di nuyu suñu mbokk yu baax ñuy fekk si. muy waa boulangerie kër Serigne Bara Cissé. waaye di nuyu sunu jëwriñ Serigne Demba Camara. waaye di nuyu sëñ Daara. Ibrahima Touré. waaye Agim Sowa Konté ñu ngi koy jox wàccuwaam. waaye coordonnateur coordonnatrice. Ndeye Amy Mbaye <laughs> tabaarakallaaw di madame Cissé moom it ñu ngi koy nuyu. <laughs> di nuyu ñëpp rek. ah jërëjëf Serigne Bara Cissé <laughs> euh, nuyoo bi am na solo ñu fay ko nuyoo bu baax waaye nuyu mbokk yi ñi ngeen gis euh, ñu toog ak ñoom ñëpp ni ko sëñ Bara lime bu defee dañuy lim jëwriñ rek sëñ Moustapha ak sëñ Ibrahima Touré. ñu yóbbaale ñi ci des ñëpp géew bu ñu demee ba ca kanam sax ñoom seen i kàddu di ngeen ko seetaan incha allahu rabbi euh, waaye boulangerie bi nga xam ne tey fii la ñuy enregistré émission bi dañ ci am mbégte mu rëy ndax sëñ Bara dafa dëkk ak ñoom waaw bi ñu xoolee doxinam it euh, ñu naw ko lool ba jël boulangerie bi tuddee ko ko mm. euh, muy boulangerie Serigne Bara Cissé euh, sëriñu daara bi nga xam ne moo nekk fii ci jaxaw waaye di kilifa ci dëkk bi di kilifa ci réew mi ñu tuddee ko ko loolu nag bu ca kanamee sax danañ ci waxtaan incha allah bu defee sëñ Baara dañuy ñëw ci présentation mm. suñu bëggoon a xam kan mooy sëñ Baara Cissé lan nga ñu ci mën a wax. waaw ah, sëriñ Baara Cissé benn dongo daara la rek. Uh-huh. boo la juddoo ci jaxaw. yaroo ci jaxa mm-hmm. màggee fi waaye sàkko fi xam-xam mm-hmm. tabaarakallaahu ba limu xam lépp mm-hmm. fii la ko xamee tabaarakallaahu nekkoon fi ak waajuram di ko tërbiya ba waajuram tabaarakallaahu jamono bi muy génn àdduna mu jël euh, mbir mi dénk ma ko ma di ko wéyale ba suñu jonn yàlla tey torkala fa tabaarakallaahu daal kooku sëñ Bara Cissé daal ci tënk ci tënk daal ci tënk rek waaye xam naa gën naa xóot loolu waaw mi ngi noonu <laughs> waaye dinañ ci ñëw dañoo baaxuwul di di wax di wax si sax sa bopp tey nag nar ah, ah. Ah. ma la bàyyi nga làqatu de <laughs> ana a mën a <laughs> sëñ Bara dégg ngeen ko ba tey mu ngi ci làqatu bi waaye dina am fu ma ko jaar nag ba mu feeñ waaw loolu moom ci kanam di ngeen ko di ngeen ko yëg yéen ñi seetaan jotaay bi euh, Serigne Bara ah. dégg nañ nga tudd wéyjuroo de Serigne Ndiouga Cissé mm. moom mi nga xam ne moo sanc daara ji mm. di mag ndax daara ji daara cosaan la mm. waaye Cheikh Ba Serigne Ndiouga euh, turam naam miinuñu ko waaye tur yi moom dañ na bépp jamono foo ko tudd ñu ne est-ce que daara ja nangam kàngam yi nga xam ne jàngal na leen sax ñu nekk diwaanu cees ñu ci bari ba léegi dañ koy ndamoo di ko tiitaroo ndax Serigne Bara taxawaayam dafa am solo Serigne taxawaay dafa am solo euh, expliquaatul ñu sëñ Ndiouga mooy kan. waaw moom de góor yàlla yi moom. tabaarakallaahu euh, li Sëriñ Tuubaa ci masaalik rek. ñoom daal ah. yàlla yi lastu af am. li ànd nii ana ana wuxum xumu loolu ah, moom bu ñu la mënoon résumer ci. Euh, ja kii nu mu tudd jaar jaaram. mu mm-hmm. ngi juddoo fii ci euh, Bawol. Bawol la juddoo waaw. Mm-hmm. tabaarakallaa ba mu noppee tàmbalee njàngam foofu ci Cilla dëkk bu ñu la Cilla. Cilla xarit général bi fi nekkoon di Serigne Touba Cilla. Mm-hmm. moo ko jàngal. ndeysaan foofu. ba mu wattal Xuraan. mu door faa jógee laxasaa yi dem Njaareem. di Cheikh Amadou Lamine Diop Dagana. ndeysaan sëñ Amadou Lamine Diop na moom Serigne Touba ko yaral boppam. est jàngal ko ba def ci moom ni muy def ci moom mm-hmm. mu ñëw ci njaareem sañ fa daara ju mag a mag mm-hmm. jàngal na wàkk seen duwaay yu bëree bare bëri tabaarakallaahu sëñ Juga mi fa la jàngee mm-hmm. xam-xam moom ak Cheikh lay Dieye mi daje nañ fa sëñ Saliou ak góor gi Baara Ñang mi ngi ci ngent kooku laa xam ne mi ngi. bokkoon nañu daara bokkoon nañu daara. ndeysaan. Hmm. ak Cheikh Abdoulaye Dieye papa yi Cheikh Bamba Dieye. Cheikh bu FSDB si. ndeysaan ak sëñ Saliou Touré mi jaar na ci daara ji. bokkoon nañ jenn daara bokkoon nañ daara waaw waaw. ak sëñ Moussa Saliou moom doomu sëñ Saliou Mbacke. Ah, waaw sëñ sëñ Ndiouga sax mi ngi nettali ni. Hmm. na feebar feebar bu xaw a euh, jéggi dayoo. Hmm. sëñ Moussa Saliou doomu sëñ Saliou Mbacke. boobu ñoo bokk na ci daara ji mu ne ko dama gis nga sa sa sa sa xalima dafa rafet. sa mm-hmm. bind. Mm-hmm. am na loo xam ne su ma ko bindalee. Mm-hmm. di nga wér ci feebar bi. nee na boobu mënul sax waaye dafa ñokk ñokk bu jug bindal ko. jox ko nee na keroog la nga ñu yëg fi feebar boobu. est-ce que. muy firndeel moo ko sëñ Moussa Sall bokkoon nañ daara. waa ak ak ñeneen mag yu bëree bëri. ndeysaan. Euh, ba mu nekk ci daara ji nag. sëriñ Amadou Lamine Diop Dagana. jël ko taf ko ci boppam. ndax xalimaam bu rafet. bindam bu rafet. jubam ak maandoom. moo taxoon sëriñ bi jël ko teg ko ci wetam. daan ko defar def liggéey loolu bare bare bare. torkal la waaw mu wóolu ko lool sax. Mm-hmm. waaw wóolu jéggi dayoo. ndeysaan ba mu ko yeewee mu dem ci ab yu Mbàkke. Mm-hmm. moom tamit jàng na waa kër Sëriñ Tuubaa yu bare bare. ndeysaan sëñ Abibu waaw sëñ Abibu Mbàkke. ndeysaan mm-hmm. ba wat euh, wattu. fànne xam-xam yëpp. torkal la nga xam ne amatul lu muy lu muy prouvé mu door faa jóge rek di wër fan lay installé. daara pour jàngale alxuraan. est que moom sëñ Juga waaw ba mu fa jógee dem na sa Saalum. Pétañ. fa la gisanteeg way juru Serigne Fallou Kane muy góor gi Abdou Kane. mu jël mu jël Serigne Fallou Kane boobu dégg naa Serigne Fallou Kane ñetti at la am. mu jox ko ko. mu ne ko kii dafa tuuti. delloo ko ko. mu ne ko kii ay yaxam laa laaj ndax li ma gis ci yow leeru yàlla gi ma gis ci yow. nuurullaahi bi ma gis ci yow. ak xam-xam bi ma gis ci yow. ak maandu bi ma gis ci yow. ak ragal yàlla bi gis ci yow. dama euh, jël sama doom jox ko ngir nga sol ci moom sa ay jikko mu door nangu jël sëñ Fallou Kane tabaarakallaahu jóge Peteñ dem euh, Kayaar mhm. nekk fa mhm. mag ñi gis ko fa xam ni wàllu yàlla bu fa ñëw mm-hmm. ñu ko fay bindaloo ak ñaanloo ak yu mel noonu mm-hmm. ak jël seen doom di ko di ko jox mi mu leen di xamal alxuraan mm-hmm. ba mu fa jógee muusante gii la ñëw nee nañ nee nañ fara dajeeg góor gi jum papa ñoom moo di jum fara dajeeg moom boo wëllanteeg moom tabaarakallaahu jóge fa ñëw jaxaaw ci doom doomu ndijaay doomu nijaayam bi boo fi nekkoon di seex màgget Kandji ñu ñëwee seex màgget Maguette mu jox ko benn pantere boobu mu ne fa mu koy tuddloo ay doom di ko euh, defloo xeetu yi nga xam ne doomi soxna moom la baaxoo def mel ni tudd doom lu takk ku fi bàyyi ko ak yi nga xam ne daal doomi soxna moom lay def mu ne ko defloo mm-hmm. euh, mu ne fa ne fa ba xajutu fa hmm. mu jógee fa de ñëw fii ci kër chef de quartier hmm. kër alaaji Demba Cissé hmm. mu jox ko foofu benn genre tool tool mu ne fa ak i dongaam ñoom Modou Ngom ñoom Amadou Dieng Daaru Salaam tabaarakallaahu ñu ci bëri nee nañ foofa lañ dalee alxuraan foofu caali eh, boobu ñun ñuy gane guñu àdduna bi mu fa jógee nag ci la jënd fii nekk fii. pàkk bu barkeel bi. mooy fii daara ji nekk fii daara ji ne mu ñëw jënd ko fi te boobu dara néew fi. est boobu fii yëpp maanaam dara néew fi. dara nekkul woon ci gox bi. waaw dara néew fi. ay tool la woon. ay tool la woon yoo xam ni la macha allah melul ni tey. ndeysaan mu ñëw jënd ko fi daa di fi sàkket. Mhm. ci ne yi. commencé ñu koy indiw donga yi hmm. par benn benn benn ñu dem ba mu tabarkalla macha allah. macha allah waaw man fii laa juddoo sax fii ci kër gi. ci biir kër gi ndeysaan. waaw fii daara ji nekk tey. waaw ndeysaan. léegi nag mu di nekk di forme góor yàlla. ak ñoo xam ne moo leen yaral boppam jàngal leen boppam ak ñoo xam ne seen sëriñ moo leen jël mm-hmm. transféré leen ci moom mm-hmm. mu mel ni xidmatu xadim mm-hmm. ñoom bëgguma ñang ñoom góor gi ma yàdd faal ñoom góor gi mbeng tabaarakallaahu boo ko doon lim du jeex seen sëriñ ne leen comme man dama nekk ci administration oo ma jotu jàngale ñëwul indil leen sëriñ Ndigo Cissé mu leen di xamal di leen jàngal waaw dem ba tabaarakallaahu jaxasoo ak dongo yi fi nekk. ba kenn xàmmeewu leen nag dong yi fi ne. Mm-hmm. muy amoon ci jamono bi mu fi nekkee. Mm-hmm. nekk fi nekk fi ba 1999. Mhm. ci la wàcc liggéey. 1999. waaw ci la wàcc liggéey. est-ce que est-ce que est-ce que muy la am solo Serigne Ndiouga yal na yàlla yokk ay leeram te taasuñu ci barkeem. dégg ngeen parcours bu ruus bi bi nga xam ne sëñ Bara présenté na ko waaye dégg ngeen ci njalbeen ga fa mu jàngee ak ñamu jàngandool. yu mel ne ay doomi soxna yu am tur yoo xam ni bokk ci njabootu sëñ Tuubaa waaye bokk nekk ay tànneef ñooñu la jàngandool moom it bi mu ci jógee mu nekk tànneef. ndax tey defar na lu bari ci ay doomu aadama fii ci diwaanu cees euh, waaye defar ay kàngam waaye kenn rek lañ ciy jël waxtaanee ko muy Cheikh Bara Cissé waaw dégg ko moom it tey mu taxawu daara ji 1999 la fi way juróom wu tedd yu bàyyi ko bàyyi koog daara ji euh, waaye sëñ Bara bi ñu la bàyyi daara ji euh, naka la yéen bi toll. waaw boobu parce que lu lu bees ci yow di ci yow. di gan ci yow. waaw lu bees ci yow. Mm-hmm. di ci yow. Mm-hmm. parce man. mosuma njort ni sëriñ bi dina fi bàyyi ko heure boobu. est-ce que. waaw ma ko benn yoon. Mhm. mais fekkoon na mu waajal ma ci wàllu xam-xam. Mhm. lépp lu doomi soxna di xam ma teel koo jàng. moo la jàngalal boppam. waaw ma teel a mokkal alxuraan. Mhm. teel a xam fànne xam-xam yëpp. est-ce waaw. loolu moo tax sonn ma ci daal. buñ ma laajee masala du ma fi nekk di wokki bopp naan nangam nangam fi ma toog laay toog joxe masala bi. est-ce que moom fekk na waajal na ma. waajal na la waaw kilifa gu mat kilifa noonu lay def. Mm. Euh, balay bàyyi ginnaawam euh, day bàyyi ko ko mën a wuutu loolu rek lañ ci di gis loolu lañ ci dégg mm. euh, macha allah muy lu am solo mbokk yi dégg ngeen ko sëñ baaraangook waaye di ñëw ak moom ci tarbiya mm. muy mel ni ku wax daara wax tarbiya mm-hmm. tarbiya sëñ juga ak tarbiya sëñ baara naka nga ñu ko mën la parce boobu boo xoolee jamono euh, day dox boobu tumuraanke amoon na lool sax boo lekkee ceeb bala ko lekkaat kenn xamul lu ñuy doon li ci ëpp li ngeen daan dundee mooy ay sombi waaw ah, sombi rek ngeen daan dundee boobu mhm. waaye tey jamono toll na foo xam ne mhm. gone ceeb mhm. ceeb jaaxul leen ceeb waaw dëgg la ndax tamit Ibrahima ree na tuddee bi moom fi ne nii du ma tuddee ceeb rek mu kontaan. ndax lépp man loxo Sëriñ Tuubaa géndu ci. ndeysaan. ndax bu nee xadd fakk kab la mhm. xadd ba sa fadd la mhm. fa dur wala wa naf jaay mu ne ñaan boromam xadd fakk kab la mu daj jéngi mhm. xadd ba sa laa mu indi nga léegi tàllal nga léegi indi ko fa lor walla dem na wa wanaf jaahi mhm. njariñ na dikk moo tax tey mhm. waxuma daara ji mais mboolem daara yi mhm. boo demee euh, nu ti tuddati poroxaan tumura année année yi ma lay wax nii tumuranke métti lañ nekkoon comme ñun tam tumuranke woon mais léegi boo fa demee ndongo yi maanaam li ñuy lekk ma macha allah ah dañuy sens tey nit defar leen cere bu subaa ñu defal leen couscous beneen suba vermicelle noonu lañ leen defal. ki ki jàngal xuraan te ku jàngal xuraan rek moom moom yooyu. dëgg la dëgg la fa tabaarakallaahu ndax sa xel. Mhm. bala muy dal li ngay jàng dugg. Mhm. da ngay tabaarakallaahu mën a nekk ci condition yu baax. condition yu baax bu njëkk. Mhm. mu mu ñun condition yu baax. maanaam fi nga tëdd di nelaw. ay sax. sax amoon na. fi ngay tëdd waaw ay sax ay lépp lépp. ay màtt ak lépp mu amoon. mais léegi yooyu amatul. jamono mooy dox. dëgg la moo tax taalib yu njëkk yi ak léegi. tabaarakallaahu yu njëkk yi ñoo gën a nekk ci condition yu baax. yu njëkk dañu daan euh, jànkonteeg ay difficulté. ñuy mhm. xiif lool sax. doo gis loo lekk ay gerte caaf ngay jënd ay ndox loolu rek ngay dundee mais léegi xéewal dafa ne gàññ moo tax xat fakk kab laa xat ba safat la fa dur walla wana fa jaay loolu sëriñ Tuubaa ñi daara yëpp la nag foo dem dañ naan dañ naan ñun dañ naan dañ naan la naan ñun année quatre woon nañu waaye nii fa lillaahi alhamdu wa sukru tarkala loolu lañ lay wax daara yëpp nag nekkul suñu daara rek daara boo dem boo leen laajee ne leen yéen année quatre-vingt yi ak léegi. Mm. ban soppiku moo am ban différence. Mm-hmm. dinañ la ni année quatre-vingt yi de. Mm-hmm. doon nañ dund dund bu tumuranke mm-hmm. ku ma saa lekk ceeb sax. doo raxasuñ sa loxo noonu koy téye. noonu ngir bànneexoo lool. waaye léegi. boo duggee ci daara ji. ceeb yi. bu ñu xëjee bu ñu ñun bu ñu xëyee di julli fajar. dañuy gis kii jël si ñamu mbaam. di jël si ay ceeb yu bees tàq. ay ceebu yàpp lay jël si kon doo ngay xam nga dañoo lekk ba desoon tabarkal la suñu jàngee bu leen ustaas jàngalee ba 10 heures mhm. maanaam réclamation am mhm. ñu kii leen ñu may leen noonu mhm. ñu jël ay mburu raaxal leen ci yenn saa yu beurre yenn saa yi ñu def mayonnaise yenn saa yi ñu def chocolat te loolu ñun mosuñu ko am ñun ñii di borom daara ji tey loolu mosuñu ko am te tey jamono moo toll foofu muy lu am solo muy lu am solo euh, ngeen tey ñu ngi waxtaane daara waaye ñu ngi waxtaane démb ak daara yi tey euh, bu ngeen dégloo sëñ baara ni mu koy waxee day mel ni jamono mu ngi dox waaye mu ngi dox di ànd ak daara yàqul daara waaye euh, defaraat na daara ba tumuraanke yi amoon démb yu ci bari wàññeeku na xañ na loolu it euh, ginnaaw ñaan gi nga xam ni sëriñ bu tàddi bi ñaan na ko di seexul xaddim euh, raw waaye daara léeg mu nekk ci ab gox comme niñ ko xamee ci koñ lay nekk du ñàkk waa koñ ba am lu ñu jàpp ci daara ji loolu it dafay mel ni ñu ngi koy gis dañu xamul ba xam fii ci jaxaw daara ji moom naka la def dëkk dëkkandoo am na nañu taamu jël seen daaru yóbbu ci àll ba. di defaree. mais ñun fi ñu nekk moo gën a dangereux. liggéey fii la gën a fii la gën a méttee. fii la liggéey bi gën a méttee. waaw bu doon àll ba rek xale duñ gis télé duñ gis dara. waaw mais fii dañuy gis télé dañuy gis lépp. dëgg la moo tax ñun ñun ñoo gën a métti liggéey. ñu nekk ci àll ba. xoolal ostaas yi. waaw dañoo dem ba rythme boobu dañ ko ostaas yi amuñu benn nelaw. ndeysaan. heure bi ñuy tëdd ak heure bi ñuy jug daanaka deux heures de temps dañuy nelaw mos nelaw jugaat nekk ci xale yi. fajar la ñuy jóg waaw ñii amuñu nelaw. nekk xale yi. 24 mm-hmm. heures sur allah xale yi macha allah. macha allah muy lu am solo. di surveiller xale yi parce que ay xale yi mm-hmm. nekkul jàngale rek. Mm-hmm. mais surveillance da ci am solo. dëgg la. surveillance ba kenn dugg ci daara di këf xale di yóbbu. waaw waaw am na ñoo xam ne ay sacrifice. dañ leen di fay ay millions ne leen fexee ba dugg daara. Mhm. indi indi xale. ah oui sacrifice ñoom lu leen jaral ñun dañ leen jaral lu ko ëpp. est-ce waaw foo lañu fekk. Mhm. am na sentinelle buy gaara ci bunt bi. Mhm. kooku bu amee deux heures temps am na keneen koy ñëw ñëw relevé ko. ba nga xam ne ku taxawaalu ci buntu daara ji ñëw da koy xam man damay sur man si ci balcon bi dama fay surveillance. ñoom dañuy surveillance ci suuf. macha allah lu am solo la. kon daara nekkul njàngale rek. mais surtout parce que da ngay dëgg daara yu bëri. ruur dafay am ruur. ruur waaw. dañ naan diw diw réer na. am na ay at at réer na kenn gisu ko. waaw waaw léeg nga dégg ko ak ñu dégg ko mais ñun falilaay xam doo sukuru. parce que ku juddoo ci daara màggal ci daara loolu du la jaaxam man man kenn mun donga yi kenn mënu cee def man lu ma jaaxal. la parce que ma jaar ci donga. Hmm. nuur ci ban bi taq ci ban bi. Hmm. ba tey ma toog ci ban bi. nuur ci ban bi taq ci ban bi ba tax na. <laughs> ñoom mënuñoo def ba lenn ma jaaxal. déedéet <laughs> déedéet ki ki wàcc bees. Uh-huh. ki nga xam dafa mokkal alxuraan. Uh-huh. ah dem dafa métier ñëw. Uh-huh. nekkaat ci daara ji. kooku lool kooku lool moom lay jaaxal. mais man loolu du ma jaaxal. sëñ Ba baatinu daara. Ah? baati baatinu daara baati <laughs> ñëwal njiitu. baatinu daara est-ce que mën nañu ko wax ci télé. waaw tuuti rek nga ñu ñamal. waaw daal mën nañu ko ci télé de. Ah? xanaa xanaa oustaz ñoom xëy na. oustaz Ibrahima wala sëñ waa ñoom dinañ la kii mais baatum daar dëgg-dëgg. Ah, waaw waaw sëñ Ibrahima nee na nga wax ñu ci tuute rek ñu ah, barkeeloo ko. oustaz ñoom ñooy wax yooyu. moom nee na nga ñamal ñu ci tuuti rek ñu barkeeloo ah, ko. mais li ma li ma wax li ma fi wax kay loolu kii la. waaw wax nga taxawaay yi rek. taxawaay waaye baat yi waxtaane uh, way juru tedd wi di Serigne Diouga Cissé waxtaane yi taxawaayu Serigne Bara uh, bu ko defee mbokk yi dañuy dem rési jëli ay uh, ay témoignages yoo xam ni mbokk yi nga xam ne ñoo jël fi nga xam ne mooy boulangerie bi dëkk ak Serigne baara tuddee ko yan lan lan lañu gis seen ci Serigne Bara ñoom dinañ ko waxal seen bopp lan moo leen ci gën a neex ak lan la lu tax ñu jël tur wi jagleel ko ki nga xam ne mooy Serigne baara waaye ustaas yi nga xam ne ñooy jàngale ci daara yi yor xale yi Serigne dox Serigne Bara jël leen doxale leen diggante ma yi tamit ñu jël ay kàddu def ay témoignages incha allah ñu dem rési ñëwaat. salaamaaleykum wa rahmatullah maa leen di nuyu di leen dalal di leen jox seen wàccuwaay man la soin bu Sarr borom boulangerie jaxaw sëñ Baara Cissé ah témoignage bi moom <laughs> dina dina dina ma xaw a tiis quoi ndax wax ji moom wax ci télé moom damay xaw a tiis kilifa moo ñu fi indi boole ñoog moom sëñ Abdou njaay ngent dénk ñu ko boobu ba léegi wax dëgg fa yàlla loxoom jógul ci ñun fu mu toll mu ñuy nemmeeku te ñun ñu nekk ay doomu daara ñu ne pour quoi pas ñun ñu jël boulangerie bi tuddee ko daara ji soit boobu la rek dafa naturel si lañ ko si lañ si waxtaan man ak sama rakk Mohamed maa moom ñoo fi nekk ñu waxtaan si moom tamit mu rafetlu ko trop buñ ko koy tuddee moom yëgu si dara dañoo wàccee kaamil ba pare soo ko wax ne boulangerie bi duppee nañ ko daara ji daara ji sëñ Baara di ñaan yàlla nag lépp luñ fi mëbët yal nañ ko yàlla defal di leen dénk suñu bopp daal ah, ñun moom bu ñu bu ñu fi ñëwee bu ñu xamanteek moom yàggul waaye lu ñu nitu daara bu gisee moromam rekk ñun ay nitu daara lañ ci daara lañ juddoo si lañ màggee muñ ñee gis ci moom ay qualité yu rafet wax dëgg fa la ñoo xam ne fii daal buñ ko ko tuddee duñ si am benn rëccu rëccu wax dëgg fa yàlla te am nañ ci yaakaar bu baax a baax yaakaar boobu yàlla bu ko yàlla tas yàlla suturaal ñu ñun ñëpp luñ fi mébét yëpp yàlla defal ñu ko tuddee nañ ko ko daal te amuñu si benn regret doomu daara bu tuddee bu jëlee bërëbam tuddee ko daara moom wax dëgg fa yàlla <laughs> loolu moom lu ko war rek loolu la def waaw di leen sant di leen gërëm bu baax jërëjëf. asalaamaaleykum. maa ngi nuyoo ñëpp di ziar ñëpp. Euh, rawatina sunu sëriñ bii di sëñ Bara di rakk ci man di rakk ju bëggit wax dëgg yàlla Euh, ñi ngi am contentement ci li nga xam ne ni par exemple suñu mbokk yi baax yi di ñi euh, yor boulangerie bi def dañ suñ baar waxuma la ak euh, tuddee ko boulangerie sax waaye def naa ni am na yeneen œuvre yoo xam ne war nañ ko mën ko tuddee ci koñ bi ndax daa fa bàyyiwul kenn ci lenn waaw sëriñ la nekk fii waaye amul kenn ku muy tànqam lu amul kenn ku muy tànkamloo koñ bi lu fi xew présence am ngay njëkk kii man nag rawatina man à chaque fois lu xew euh, dana ma woo ne ma nangam xew na loolu moom dama lu may témoin la lekk tamit bu dugg ci daara ji wala leneen lu mu lu mënti dugg ci daara ji euh, bokk na koog waa koñ bi kon moom waxuma waaw waxuma Euh, boulangerie bi waaye am na yeneen œuvre yoo xam ni tey jii war nañ ko fi miir parce que tey jii wax dëgg yàlla euh, liggéey bi nga xam ne ni par exemple moom la fi baayam nekkee woon di Serigne Ndiogou Cissé parce que man euh, li fekkee na ko fii laa nekkoon taalibe yi mag yëpp presque ñu ci bëri xamante xamee na ak ñoom daan naa ànd ak ñoom di taxani et tout waaw. waaye eh, tey xam naa ni sëñ Ndiouga bu dellu siwaatoon fii dana gis loo xam ne nii <laughs> dana ko yéem waaw ñëw daal ñu ngi lay ñaanal waaw ca kaw ca kanam waaw la ñaanal eh, gudd fan ak wér nga yàgg fi loolu lépp eh, li ngay mbébét ci daara ji yàlla na nekk loo sotti ci jàmm waa dëkkandoo yi comme ku ci mel ni euh, man maa njëkk a présenté wu parce que man wax dëgg yàlla man moom sama bopp daal laa xam maanaam euh, mention euh, numéro un la ci man parce que man tey jii fu mu toll nii amul dara loo xam tey jii fu mu toll nii mi ngi koy tëral wala mu di ko dogal te woowu mu ne ma nii même lekk sax su duggee ci daara ji damay fële la may sëppoo di ma woo koñ bi tamit amul kenn koo xam tey ji wax dëgg yàlla mën ngaa wa euh, waat ci ci lépp nag ci boo xewlee am na dispositif bàyyi la ndongo yi ñëw jàppale la hmm? soo nga nekk ci tiis nga nekk ci naqar donc nit la koo xam ne daal vraiment euh, maanaam contentement la daal ci jaxaaw waaw dëkk ak daara dëkk ak daara xam nga euh, lu difficile la waaye sëñ Baara dafa organiser daara ji d'une façon boo xam ne nii amatul taalibe buy perturbé wala buy bund xatal ndax taalibe yëpp dañoo am yar goo xam ne am civisme boo xam ne nii tey taalibe bu njëkk danaan nekk ci koñ di yàq ka rajaxeek lu nekk mu dugg ca parce que xëy na bon état bi ñuy dund la waaye sëñ Baara daf leen a jël jàng bi dafa am heure du ñu perturber du ñu yàq waaw donc euh, loolu daal moom moom moom moom moom xam naa ko ci discipline yu sëñ Bara waaw waaw voilà merci waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu sëñ Xaadim ñi ngi ziar bu baax di ziar sa caméraman bi nga àndal muy caatu sëriñ Saliou di nuyu suñu kilifa gi toog muy Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Cissé di ko ñaanal suñu boroom yàggal ko fi lool te ànd ak ci barkeb Seexul Xadiim noonu la ñuy nuyoo suñu kilifa muy suñu Demba Kamara ak oustaz Ibrahima Touré ak sëriñ Serigne Sonyibu ak Mohamed nga xam ne ci bërëb bii ñu defee émission bi ñoom ñoo ko waral muy boulangerie sëriñ Bara Cissé di daaray Serigne Bara Cissé ngeen di delloo kàddu bi incha allah ah Xaadim a nekkin wi moom macha allah comme ni ñu sëriñ bi yaree rek noonu la ñuy comportement ak ndongo yi ndax sëriñ bi yar nañu yar goo xamante ni képp ku ku ku nekk suñuy loxo rek yarub sëriñ Bara Cissé lañ lay yar ndax yaram boo ko am na boo ko teg yeneen yar yi am na ñoo xam ne dañuy yar seeni seeni naawam seeni taalibe di leen mettital wala di leen def loo xamante ni bokkut ak yariñu maanaam ni sëriñ di yaree ndongol daara waaye sëriñ Bara Cissé yar nañu ci bi iddi yaali bilaa bukkaay yar leen te bu leen dóore noonu lañ nekkale nekkeek moom yàlla xam na ne ba ñuy ay tut tànk la nekk ci ay loxoom ba suñ jonn yàlla tey jii man mosuma gis fu ma dóoree yàlla seede na ko mosuma gis fu ma dóoree kon noonu la nekkeek ndongo yi dañ leen ni yar te duñ leen dóor dañ leen di jàngal te duñ leen dóor kuñ ci wax nga të nag dañ lay jàpp sa loxo yóbbu la ba ci kaw wax sëriñ bi moom dina xam ni muy waxee ak yow ba soo ba soo ñëwaatee suñuy loxo dinga nga ne di nga di nga réglé li nga defoon dootoo ko maanaam defaat suñu kanam. kon maanaam am na yërmaande daal ci ay ndongaam ba ku nekk képp ku nekk ci loxoom rek ba nga juyee ko rek waxuma la daara sax waaye koñ ba nga dëkk kër gi nga dëkk comportement ba nga fay yore maanaam sa yar ak sa teggin rek maanaam day laawaale koñ bi yëpp te doo wax kenn di ko wax di ko di ko maanaam di ko di pirti bi ci kawam sa dal ak sa yar noonu ngay waxee ak moom ba lépp lu mu defoon rek da koy bàyyi maanaam ànd ceeg yow see kàddu si xaalim noonu mooy daara macha allah. auzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. rabbi sarax li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli wajal kalaami rashida wa mursida wa fikratan nawir wa qalbi arshida mbokki jullit yi mbokki taalibe yi yéen ñi bàyyi xel télé bii di RTT ñu ngi leen di siyaare di leen baalu xaq di leen baalu àq ñaan bu subhaanahu wa sunu kàddu fekk leen ci jàmm di siyaare mboolem ñi nga xamante ni ñoo nekk ci bërëb bi di siyaare seen xaar yi nga xamante ni li sabab li moom la ci moom la waaye di siyaare cameramanam bi waaye di siyaare koo xamante ni mooy raïs bi mañ jotaay bi muy sëy Mouhamadou Lamine Baara di ko ñaan bu subhaanahu wa taala doole ko taxaw ba lépp lu mu naa la déggee alquran si mborom kàttanal ko dafa ko mbooleem ñoo xamante ni ñi ngi dox ci alquran xam naa ne nag euh, suñu gisee lii ñi ngi maa ngi siyaare ñi fi nekk ñëpp rek bàyyiwul kenn alhamdulilah mboolem njabooti si jug gi suñu gisee lii nag xam ne bis ñëw na boo xamante ni jëm ci wàllum alquran te yàlla moom dafa nekk ko xam ne alquran la wàcc ci kaw tuuf muy benn téere boo xam ne moom dong ma fi nekk di di yaabanjole kaloo mat naa bàyyi xel kon bis boobu suñ ko woolee rek ñëpp war na ko bàyyi xel bu dee ci wàllum programme njàng mi nag euh, njàngale moo xam ni comme ni sëriñ bi daan wax nit ki boo ko yaa doon ko a may mu am temps ndax su amee temps rek daanaka man xele mën naa dem ci leneen daanaka loolu ci leen nekk programme la boo xam ne nag daanaka daar yi koy doxee ba wute na ndax man daara yi ma jàngee programme bi néew fa dëgg yàlla. muy waxtu wu nekk rek gone dina nekk ci dara waxtu wu nekk dina nekk ci dara lu tàmbale fajar. ba gee la boo xamante ni lu dam rek moroom dikkaat. ndax bu ñu xëyee dinañ jàng kam alquran gone jàll laa dàmbali daa seen bind bi nga xam mu nekkoon bind marx bi. bind njël bi. suñ ko jàngee pare delluwaat seen raxas. ndax daara ji dafa am na muy doxee mooy ñi nga xam ne dañuy soxla wàllum kaamil yu demee noonu su ñëwee sàkk ko si ñoom dañuy dem waaye du yàq seenam jàng dara ndax xayru naas xayru naas anfa'uhum linnaas ki gën ci nit ñi mooy nit ki ñi nga xam ne mooy jariñ nit ñi kon loolu ba mu ko xamee moo tax mu jël képp koo xam daa soxla dara ci kaamil rek day yéeme jabar fekkee seen programme boobu day jàll nag nga defee ñu bu ñëwee bala ñu dem day jàng seen raxas bu dee seen mooy di wax wet suñ ko jàngee pare ñu dem fekk bis bi nga xam ne du ko defee ñëwee day jël seen tërëf xam-xam muy majaalis bi suñ ko jàngee pare daal di dal tuuti de léegi añ bi ñëw ñu julli tisbaar jàngaa bi nag kaamil léegi dal tuuti rek jàng jàng tàmbali jàngoon nga xam ne suñu jàngoon pare rek dañuy delluwaat dem seet am bi mooy jàng xam-xam bi ko defee daana ko du yàgg dara euh, timis jot ñu delluwaat timis bi jàng timis jàng marax da nga bis bi yëpp ci wàllum programme la doon muy loo xamante ni nag euh, fekkee ci wàllum alquran nit ki moom comme ni ko suñu baara waxee inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun yàlla suñu borom subhanahu wa taala moo wàcc alquran waaye it moo koy wattal boppam muy loo xamante ni ku ci nekk rek waroo tiit dara waaye waroo jàq dara kon suñ ko woyatee rek ku nekk rek alquran safoo la alquran ñor la rek ndax umma islaam bépp lañ ci woo képp koo xam yaa ngi wax ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rek rasuluhu rek ñu ngi lay wàcc bis maanaam programme bi ñaata xale ñoo ci war a tar tari ak ak seen jàng fan la toll. waaw jërëjëf sëñ Xaadim ci wàllum laaj boobu fekkente ni programme wàllum ñi wax ñu jàng ñi programme bi. ñi war a jariñ moo bari na dëgg fi yàlla ndax sa jàppul lim bi wax dëgg yàlla jàppul lim bi fi ñuy wax ne waaye bis boobu daal incha allah taala fekk bi nga xam ne may nañ ko ci wàllum tari ñi nekk ñëpp incha allah taala dina 3 euh, heures heure yi 3 heures temps yi maye incha allah taala dina ko war dina ko dina ko tari. ah. am na ñu ci wàcc am na suñu wàcc waaw am na suñu wàcc waaw. am na si wàcc waaye am na nekk si wàllum seen wàllum toppaat bi yooyu nekk waaye ku nekk daal xiraat alxuraan bi wax daal bi ku nekk daal ku nekk daal boo xamee daal ci xiraat alxuraan muy wàllum tajwid bi rek incha allah taan yoo xam ne amul benn na xadis yoo xam ne dina ko feeñal am na yoo xam ne duñ jàng seen wàllu aliw ci wa barakaatu maa ngi leen nuyu yéen ñëpp ku ci nekk ak sa ak sa sant man la soxna Ndeye am mbay man maay coordinatrice u cant gi ñaa ngi leen nuyu yéen ñëpp maa ngi ziar sëñ Baara yàlla yàlla bàyyi ko fi taxaw ko yéen bi diis na lool waaye nag yàlla ko yàlla oyofal ñu ngi woo ñëpp nag ci bis bi bisub alxuraan bi la 4 incha allah jiital suñu jëwriñ ñoom taa Khady ñoom taa Ngoné Sow ñoom taa Mati Mbaye ñoom ñooy suñuy mag waaye comme ñun ñoo gën a oyof loolu tax ñu jël wàllum hôtesse yeeg yooyu yëpp teg ko ci suñuy loxo waaye am nañu ay mag te ñoo ñoo fi jiitu ñooñu la ñu fekk ci daara ji ñoo topp seen ginnaaw ñu ngi woo mbootaay yeeg daara yeeg dëkkandoo yi nag surtout dëkkandoo yi ndax nit moo amul lu dul say dëkkandoo dëkkandoo yëpp ñu ngi leen di woo la 4 incha allah soxna si waaw loolu de initiative bu rafet la waa boulangerie bi moom tànn nañu choix bu baax ñun ñëpp kontaan nañ ci bég nañ ci ndax euh, euh, sëñ Baara moom ku ko tuddee rek ñun nga tuddee ndax euh, boulangerie bi ak daara ji que ñoo takkaloo te kër gi ci ak boulangerie bi yàgg nañ lool yàgg na moo jiit suñu juddu ñun nag kontaan nañ ci lool di ñaan boulangerie bi yàlla teg ci loxo ci barke alxuraan ñoo xam lépp luñ ci séentu lépp lépp luñ ci yéene ba jël tur bi tuddee ko sëñ Baara Cissé yàlla bu yàlla tas yaakaar yaakaar giñ ci am yàlla na ko alxuraan téyel boppam yàlla defal leen ci sutura ñëpp a ci kontaan ñun ñëpp kontaan nañ ci yàlla na ci yàlla def jàmm xéewal ak sutura ba lépp luñ ci seenu ba jël tur bi tuddee ko sëñ Baara yàlla na ko yàlla def ñun ñëpp rafetlu nañ ko jërëjëf mbokk yi euh, gis ngeen dem nañu rési jëli li nga xam ne mooy témoignage yi euh, ñi nga xam ne ñoo dëkk ak sëñ Baara waaye ñi nga xam ne ñoo am initiative bi euh, ngir jël boulangerie bi nga xam ni mooy boulangerie sëriñ Baara Cissé di loo xam ni c'est une première ndax sëñ Baara dëkk ak ñoom ñu seetlu ci moom ay jikkoom dégg ngeen rafet gi macha allah xool nañ ko muy nitu daara ñoom tamit ñi nitu daara ñu jël ko tuddee ko boulangerie bi waaye dégg ngeen dëkkandoo yi. Euh, li ma ci ëppal solo ci témoignage bi mooy euh, sunu mbokk mu baax mi doon euh, témoigner ci wàllu dëkkandoo mu ne xale yi duñu ñu perturber sëñ Baara yar yar na leen ba xale yi du ñu perturber ci koñ bi te loolu dafa am solo ndax daara baaxoo na di di di jaljal yi waaw coow lu bari waaye dégg nga nee na sëñ Baara yar na leen ba xale du ñu perturber kon loolu taxawaay bu am solo la ñu jaajëfal ci sëñ Baara bu baax a baax waaye dégg ngeen ustaas yi nga xam ne ñoo ci nekk ñoom it macha allah wax nañu tolluwaayu daara ji. ko defee ci loolu sax la ñuy des euh, ndax euh, sëñ Bara euh, ginnaaw bi nga seetaanee témoignage yi dégg kàddu yu am solo yi ñu wax ban yëg-yëg nga ci am. waaw sëñ Xaadim falilaay alhamdu wa sukru rek. Mm-hmm. dalee ko ci borom boulangerie bi. Mm-hmm. ak tabaarakallaa suñu jëwriñ ji. Mm-hmm. Asi Demba Camara. di doomu suñu waajur Baye Mamadou Camara. tabaarakallaa ñoom bu ñu doo dongee rek dongee xat. nekk bu ñu xat loon dongay rek dongay xat mm-hmm. nag ku ne xam na ne donga daara dafa naqari dëkkal mm-hmm. tabaarakallaahu seeni comportement mm-hmm. waaye ñoom yaatal nañu donga yi bu baax moom moom agi Demba Kamara mi ak mboolem ñu ne ci koñ bi yaatal nañu donga yi parce que da nga daan gis ay dëkkandoo dëkkandoo daara ñi yéeg ak a wàcc di dem polis ah. ak tribunal di moolu daara ji mais daara ji koñ bi koñ bi de fa lillahi alhamdu wa sukru kenn yóbboogu fi daara ji police wala gendarmerie tabaarakallaahu loolu it ñu sant leen gërëm leen ndax xëy na doo ngay di def di leen def sax lu jaaduwul mais du ñëw di booleeg yu mel noonu te loolu day am ci yeneen daara macha allah am na solo tabaarakallaahu man mm-hmm. toujours ma ne leen man ni ma bañee déranger nit mm-hmm. noonu la bañee sama njaboot déranger nit macha allah waaw ah, man pënd sax bëgguma ko yëkkati mu mu dal ci nit mu dal ci nit kon noonu laay waxee sama njaboot ñoom it nañu fexee tabaarakallaahu sàmmunteeg àq ndax àq dafa sew. àq dafa sew dëgg la. toujours ma hmm. nit yàlla man nga koo ameel àq. Hmm. muy ay boru julli wala boru koor wala leneen. Hmm. boo ko jéggaloo da lay jéggal fii. du xaar sa yomal xiyaam da lay jéggal. mais doomu aadama boo ko amee àq. yàlla nee na bul ma jéggalu boo bëggee àq bi dañ dama jéggalu ko. waaw. masalan ñoom borom réew mi xaw ma Macky Sall ak soxnaam. weeru jot ñu dem umra ji wala màkk di balu waaye am na àq boo xam ne yàlla mën leen mën na leen koo baal am na àq boo xam ne yàlla du leen ko baal du ko baal ndax ëllëg dinañ laaj noon ngeen doon gouverner senegal dëgg la bakkan yi yëpp dinañ leen ko laaj justice bi mu ko dénkoon dina ko laaj ndax daa nga leen digal lu baax école yi. dinañ laaj ndax seen i jàng. normaloon na ba ci maanaam hôpitaux yi. lépp des nañ ko laaj. ñoom euh, tabaarakallaahu moom Macky Sall. yonent bee ko wax. kullukum raahin. wa kullukum. masoolu masoolu arraahiyati tabaarakallaahu mi ngi noonu. kon bu ñu la dénkee responsabilité. da nga cee war a veiller bu baax a baax. lu dénkee daara wala réew wala leneen ak leneen bàyyi ci xel ba yàlla xam ne bàyyi ci bàyyi nga ci xel dëgg la sàmm cent pour cent cent cent pour cent nag hmm. lépp jaar yoon hmm. yombul waaw parce que alkamaalu hmm. lillaahi lillaahi yàlla rek moo moo jagoo mat moo yeyoo mat kon ku ñu dénk nga di ci nab nabi sa kem laay kàttan lu ci faay faay bu mu amee rek. yàlla dina li dina li jéggal naa la. ndax xëy na njuumte la waaye yow farlu woon nga. waaye li kay mooy di gouverner ci maa tey moo xam waaw yow moo xam yow sëñ daara bi nga. nga seetaan xale yi ba ñuy ruur. ñii di réer. Ah, ñi nga xam ne dañ leen këf di leen yóbbu ak fëkk di leen yóbbu. Mm-hmm. yooyu yëpp da nga war a bàyyi xel fii. ñaan dimbalu yàlla. tubaarkalla am na solo am na solo Serigne baara dégg ngeen euh, dégg ngeen euh, taxawaay bi mm. euh, Serigne baara ndeke moom moo jóg ca loola ca ba muy teel mm. ndax mbir moom boo xamee responsabilité bi nga gàddu amaana mën nga cee def yitte ba yàlla dimbal la ci suturaal la ci ba li nga ci bëgg am ci kon moo ci def yitte ndax bu yoroon njaboot gi bàyyi leen lijjantiwu leen toppatoowu leen xaj na kon dinañ yi ciy bañ yëpp dana ci am waaye ñu sant ci yàlla bu baax Serigne Bara dafay mel ni dañuy desal ci daara ji mm. waaw ndax daara léeg mu am ay ay ay soxla ay ay soxla lu muy soxla waaw ndax mën na soxla espace ah, mën na soxla euh, jàppale ak parce que tamit euh, daanaka euh, fii jàmbaar amul ku ñu dimbali rek moo am waaw dafay mel ni kon daara am na yu mu soxlaa ah. noo def ak li daara ji soxla loolu kay biir daara kenn at lu ko kenn at lu ko déedéet mm-hmm. mu diisee mm. xale seen saabu yi fóot hmm. seen courant seen ndox seen dund hmm. te bu dee surtout nga ne yow am nga jomm kenn dootu ma jàll daara ji depuis covid bi hmm. covid ba léegi ñaata la du ñeent ah, ñeenti at kenn ma jàll du fi kon amatul yalwaan déedéet duñu ma jàll suba duñu ma jàll añ duñu ma jàll reer ah kan mooy kan moo leen di jox. yàlla yàlla de moom may dimbali. saako ceeb bu ñu ma sarax. Uh-huh. ma ma dénk damaa am magasin boo xam ne. Uh-huh. saako ceeb bu ñu ma sarax wala diwlin bu ñu ma sarax fa laa koy tëj. lu ñu ma sarax rek lu ñu ma jox addiya <laughs> fa laa koy tëj. maanaam li ñu lay siyaaree moom ngay. jëlaat may siyaaree moom laay moom moom laa tuddee woon sarax rek. <laughs> Ah, xam nga baat boobu ci ñëwee jaar waaye <laughs> li ñu lay siyaaree. li ñu may siyaaree lépp uh-huh, fa laa koy tëj. est-ce parce que ay dong ay centaine nit. tabaarakallaa nga nga nga leen dundal loolu bu yàlla intervenir wuro leen woon du baax waaye wa maa min daabbatin fil ardi illaa alaa llaahi rizquhaa loolu mooy lan sëñ bi yàlla nee na hmm. yàlla nee na jëmm ju ma wàccee ci kaw suuf hmm. maa ko gàddul maa ko warlul wërsëgam lay dem ci biiram hmm. ko daayam la muy sol dëkkam ak yëpp yàlla nee na maa gàddul lii firnde bi mooy daara ji chaque jour nit wàcce yëpp saako mburu dañuy dem bay bëgg añ nit euh, gaare oto wàcc ay booli. reer bi noonu. est-ce que loolu loolu xéewal yi di wàcc. yàlla mu leen di yebal di indi. wa maa min daabbatin fil ardi illaa alaa Laahi rizquhaa wa ya'lamu mustaqarrahaa wa mustawdaahaa. kullun fi kitaabin mubiin loolu ñun gëm nañ ko baax a baax. moo tax sonnuñu ci. bu doon budget mhm. booy ko cinq cent mille sax. Mhm. loolu mënoo ko. ñun li ñuy dépensé par weer. Mm-hmm. ëpp na ay 500000 rek yooyu. est-ce que te duñ xam sax fu muy jógee. doo xam fu mu jógee déedéet. Ah, noo def ak espace daara ji xat na. wala espace bu xat na espace bu gën a xat na lool. Mm-hmm. bu ñu mënoon a am ay espace kay. Mm-hmm. bu ñu mënoon a jàppale ci ay espace yu bari. dinañ ko kii de. waaw defar ko war naa am a am ñu jox la terrain boo xam ni. Euh, mën nga dem ba euh, defar ko mu mu méngoog jamono. jamono bu ko defee mu gën a am yaatuwaay boo xam ni dongo yi ne fa ah, dongo yi dinañ fa mën a nekk. ustaas seen seen yar yi dina dina mën a kii. Mm-hmm. parce que ustaas boo xoolee ustaas ustaas yi. Mm-hmm. ak surveillance yi. Mm-hmm. ak élèves ñoo ñoo bokk néeg bu ñu tëdd. Ah. te loolu jaaduwul. déedéet loolu jaaduwul ustaas yeeg seen. seen néeg. Mhm. donc yeeg seen néeg. looloo jaadu. looloo jaadu. looloo jaadu mbokk yi mbokk yi nga xam ni euh, def lu baax rek moo leen ñor ak taxawu daara waaye bëgg alxuraan lool. Mm. Euh, bari na fi bari na fi ci dëkk bi fii nga xam ne mooy diwaanu Thiès rek jarul ñuy génn sax euh, ndax Serigne Mor Gueye sopp na bi mu ngi fi macha allah kuy taxawu daara la waaye kuy taxawu alxuraan la koo xam ni yonent bi rek la bëgg ku mel ni sëñ Baara mi daanaka lu toll ci mën nañu wax ni ñaar fukki at mu yor ko daara ji wowul kenn nag ndax lu mu am mu ngi koy def ci daara ji waaye nag day jaadu nag yéen ñi nga xam ne da ngeen di defal yàlla ngeen ñëw taxawu ko xool ay bëgg-bëggam daara ji ku ko defal yàlla nga defal te ko defal suñu borom doo ko perte mukk kon man maa ngi woo El Hadj Mor Gueye sopp na bi sa xarit la xam naa ne sañ nga ko woo waaye maa koy woo man maa koy woo mu ñëw taxawu la taxawu daara ji waaye woo aussi tamit ku mel ni ab Ablaye Dieye moom it mu ngi fii euh, di doomu Thiès waaye di koo xam ni daara da koo lool euh, woo mu ñëw taxawu Serigne Bara ci daara ji wutal ko terrain tabax la ko ba mu jekk man waxuma sax ngeen di wut terrain di taxaw mais nañu wut terrain jox ko tabax ko ah, ba mu jekk ba mel ni mu war a mel mu dem euh, yóbbu fa daara ji bu ko defee xale yi gën a espacé oustaz yi gën a espacé bu ko defee ëllëg yi ndaw yi ñu mën a am ci ñoom yaakaar loolu maa ngi ciy interpellé ñëpp euh, bàyyiwuñu kenn ba ci Pape yaa mi nga xam ni mi ngi nekk fii euh, ci jaxaw man nañ ko wax caali ak jaxaaw benn la bu defee bu baax baax def ko lu baax yi bari nañ ci dëkk bi bu ko defee kon mu ngi noonu bis baa ngi noonu waaye dañuy ñëw sëñ Bara ci bis bi muy le 4. waaw le 4 noo ko waajee sëñ bi. waaw comme ni nga daan waaje rek. waaw fexe yëgal ko ñëpp rek. ñu fa yéene ci ñëw teew ci. ñëwee eh, sàkk fi yàlla sàkk fi ngërëmu yàlla rek. Eh, comme ni ko sëriñ bi bëggee woon rek. màggal gi màggal gi. Mm-hmm. lépp xumbaay beeg lépp. Mm-hmm. waaye dañ koy teg ci. taqsimo bi sunnati bu ko defee yaquduna lil jannati bi isdi yaadul minati li ma wax la seen moazam est-ce que foofu rek lañ ko fas yéene teg fas yéene ñoo génn mhm. ni ko sëriñ bi moo tax boo xoolee mhm. euh, communiqué communiqué gi yëpp communiqué gi yëpp ah yëpp doo mhm. dégg ñu ne ñu ngi koy dara jàllale président de la république wala premier ministre wala Marème ay Marème Faye Sall ñoo nit ñooñu mm-hmm. wala ay diw sàngam diw sàngam mm-hmm. dinañ ci woon ñëpp nag mm-hmm. mais kenn du dégg fenn ñu ne ñu ngi koy parrainer euh, monsieur le ministre wala président wala directeur société yu mel noonu eh, fa mu neewoon rek lañ koy teg ndax bisu yàlla la. bisu yonent bi ba Sëriñ la. dañ ci woo kon gaayu yàlla yi. gaayu yàlla yi gaayu rek lañ ci woo. ndeysaan ku ko dégg te xam ne yàlla la ñor. Ah. di nga ñëw jàpp di nga ñëw ci bis bi. loolu rek incha allah rabbi bis bi ah, dafay mel ni ci alxamis ji. alxamis ji waa kër sëñ Modou Kara nga ko àndal. waaw sëñ Modou Kara Mbacke. Mhm. ak jëwriñam ji ne fii ci romb yi ngeen. sëñ Moustapha ñu ngi koy jàmbaar la lool. Mhm. diwaanu murid yi yëpp ñu ngi leen di xaar ci alxamis bi mhm. comme d'habitude rek ñu def nañ daan def mhm. ñëw fi waajal tabaarakallaahu guddi ajuma bi mhm. bu ñu nee suba la tamit te samedi ba ñoom daañu daañu woon delsi di durus ak a ñaan daaw ñu def defoon ko mu am solo lool ren ñu ngi leen ci seen waat fa tabaarakallaahu tabaarakallaa insha allah bis yu mel noonu sëñ Baara dikkal dikkaatul ñu ci njariñ li ak nit ki lan la ci mën a njariñ li bari na ndax ko fi teew alxuraan ji ñu fi wàccee tasbihaat yi hmm. salaatu yi hmm. loolu xajul ci menn réew wallaay ci ñaan nag réew Sénégal am jàmm nag ndax fi mu toll nii nag soxla na ko lool soxla na ko lool hmm. sunu ay njiit yoo xam ne xel dëgg yàlla xew waaw sunu ay njiit yal na njiit yi yal yàlla wëlbati amin amin delloo seen xel ba ñu parce que njiit njiit boo dégg ñu njiit dafa war di tollare lu bare bare dëgg la jéggale di jéllale waaw waaye njiit bu dul bàyyi. Hmm. naan lu mat day dagg par force. Hmm. ana njiit. dëgg njiit bu dul amul amul amul tolérance. Hmm. du jéggale du jëlale ana njiit. yonent bi de moom moo doon nekk moo nekkoon xayral wara. te danaan jéggale. daawul mbugal kenn. ndeysaan da koy tooñ sax. gi degg ngeen histoire soxna si daan bale bunu këram fajar balaa moo leer mu dem sotti ko ci bunu kër yonent bi ngir naqaral yonent bi bu ko yonent bi yërndoo ba gis ko bàyyi ko ci biir. Mm-hmm. ba soxna si bu yonent bi toogee ñaari fan gisul mbalit mi mu laajte ñu ne ko dafa feebar mu dem di ko seeti. Mm-hmm. keroog keroog la soxna si dugg ci diin lislaam. mais xoolal loolu. jikko ji rafet. Ah, lu tax loolu Macky Sall bi mënu ko. wallaay laay war na ko lu tax Macky Sall mënul mënul loolu. Mm-hmm. tax euh, euh, affaire di diffamation yi. yu ñàkk fayde yi lu tax néewul nañ nañ teg lépp te bu ko néewoon nañ teg lépp si nañu teg lépp suuf. waaye ay bakkan di ci dee. koo xam ne danaan man sama doom bii moom laa yaakaaroon. nga sàggan ba mu dee. nga defee ne ëllëg yàlla yàlla du la ko laaj. kullukum raayin. wa kullukum mas'uulu an raayati yi salaamaaleykum. est-ce que. am na solo <laughs> am na solo dégg ngeen euh, kàddu yi Serigne Bara Cissé tubaarkàlla am na solo lool am na solo lool ñu sant ko bu baax gërëm ko euh, macha allah bu ko defee rek euh, mbokk yi dégg ngeen dégg ngeen dégg ngeen dégg ngeen dégg ngeen émission bi dégg ngeen émission bi waxtaane nañ ko waaye waxtaane nañu daara waxtaane nañ aussi tamit li nga xam ne mooy programme le 4 mai bi dégg ngeen Serigne Bara ni ko waajee waaye dégg ngeen ñu ci fas yéene àndal waaye dégg conseil yu am solo yi nga xam ne joxe na ko ci mbooleem ku yor euh, njiite jiite dara ak taxawaay ba nga ca war am am na solo bu defee mbokk yi RTT TV euh, moo déplacé woon tey ñëw fii ci jaxaw ngir lan ànd ak Serigne Bara Cissé ci bis bi bis bi muy waaj euh, le 4 fii ci jaxaw incha allah muy bis boo xam ne dañ koy xëyee yendoo ko waaye ba guddi gi sori lool incha allah rabbi kilifa yu bari war cee teew ci njiital Serigne yu ture mi nga xam ni moo fi nekk Serigne Touba. ak njabootam war fee teew waaye njabootu sëñ Xaadim Lo waaye mboolem kuy kilifa diine wala ngay nitu daara war a ñëw ànd ko ak moom waaye rawatina jàngkatu xasaay yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi ak ñi nga xam ne ñooy waxtaane Serigne Touba ñoo ñëpp war a ñëw ci bis bi ànd ko ak Serigne baara ndax Serigne Bara xam nañ ko ci yaatalam waaye xam nañ ko ci taxawaayam ci diwaanu cees ku woote mu ñëw lu baax lu nekk nga gis ca jëfam gis ca ay doom bu defee mbokk yi ñu ñaan yàlla àgg ci ak bis bi ak jàmm sant mbooleem koo xam ne yaa ngi ñu doon topp ci seen jotaay bi nga xam ne mooy wàccaayu bis yi bu ko sant bu baax caat mu Serigne Saliou mi nga xam ne moom lañ àndaloon ci caméra bi euh, gërëm bu baax président Mamadou sekk mi nga xam ne moo jiite liggéey bi waaye gërëm bu baax euh, ki nga xam ne mooy soxna nguy faama technicien yi duñ leen bàyyi muy euh, sëriñ Babacar saw ak mbooleem koo xam ne rek yaa ngi ci télévision ñu gërëm leen bu baax sant leen euh, jox leen rendez-vous ci beneen jotaay waaye ngeen bàyyi xel ni bis bi RTT TV dara du leen ci ëpp dinañ ko ànd ak yéen euh, li ci tàmbalee ba fa mu yem incha allahu rabi nañ ko defee woon daaw rek nu ko raw euh, lañ koy defee ren bu ko defee ñu ngi siyaar ñëpp di sant bu baax nag sëñ Baara di ko sant bu baax a baax ndax ñun suñu njaboot dafa nekk ci fi nga xam ne mooy daara ji waaye ñu sant ci bu baax ndax mbooleem lu lu ñu waroon mën nañu wax ni sëñ Baara xaaruñu ci amul lenn loo xam ne ñun danañ ñëw di ko fi di ko jox ciy xaar wala mu ñuy woo di ñu soññ ci dara xale yi rafle wuñu dara manqué wuñu dara li ci gën a doy waar maa ngi koy nettali caat bërki démb euh, te ba ci sànq rek maa ngi nettali ni ko xale yi ci koor gi dama leen woo ni leen ba xam da ngeen di julli si ma déedéet julli si wuñu waaw ma ne ko dëgg tabaski da ngeen di xaar ba tabaski mënu ma déedéet sax tabaski gu màggal la ñuy ñëw te loolu nag <laughs> muy wane ni kon ñoom daara ji sax moo leen dàqal seen kër bàyyi waaw loolu am na solo lool wax dëgg yàlla suñu xel dal na ci suñu xol it sedd na ci Cissé ñu ngi lay sant bu baax te di la ñaanal taxawaay bi yàgg lool barkeb Sëñ Tuubaa jërë ngeen jëf ñu jox leen rendez-vous ci beneen jotaay incha allah